Atia ñu ngi ak Papis Général euh, Papis Général Papis ñu ngi lay nuyu. bon cher bu baax. ñu ngi lay màggal lu bëri bëri. waaw fii la Obey dinañ màggal tamit ak jaamu ju bëri ak jaamu salaam ci yéen. Mm-hmm. gannaaw yàlla ak yonante ak sëñ Modou Kora borom Daaru. Mm-hmm. avant loolu nag samay waajur gannaaw yàlla. Mm-hmm. macha allah maa ngi cher bu baax. macha allah Papis ñu gis la euh, li ngay fréquenté ci làmb ji lu ci mel ni bëri bi bëreetul léegi yaa ngi ci yeneen lan moo tax nga bàyyi léegi bëri bi avant may dugg ci yeneen. waa dañ maa yokkoon ndigal nag waa dañ maa joxoon ndigal 40 ans bu may soog a daanu sama premier défaite maa ngi am 38 ans xamu naa dinaa daanu Assane Ndiaye na ma jégal ak. xamoon nga ni di nga daanu. xamoon naa ko. lan moo waral nga ni xamoon nga ko. waaw que tamit may gis te âge baa ngi ñëw 40 lañ ma waxoon maa ngi woon ci 38 ans mag ko lu taxoon ma dagg sama loxo yi sama loxo yi gaañu ma ci sport de maa ko dagg galam set. yaa ko dagg. ak sëñ Modou la ma Assane Ndiaye ak alaaxira. mais lu bi dagg bi. que mosuma daanu te bëgguma daanu. Hmm. Hmm, te bu dee bëre kese kese ak jaam ak salaam ak dëgg rek avance mot sekk. entraînement mot sekk. xale yi ak mag yëpp. mu ne xalu mbër rek boloñ ma ko mu ne ngeen mu waxatuma ko mais Papis gis nañ ne daanee nga fi mbër nu nekk Papis am na entraînement même bi ngay bàyyi am nga entraînement daanee nga fi mbër nu nekk Papis ku nekk naan Papis Papis Papis nga xëy rek daal di bàyyi est tamit yoon la hmm, yoon la say fans nan nga leen di def parce que ba tey ñu ngi lay laaj xam nga luy fans ngay bëre muy neex du ñëpp nag de waaye gis nga booy daan muy neex buñ lay daan dafa am fans jàpp am fans ma riirandoo rab yi seen rab yi ñu topp la boo daanoo daanuwaat daanuwaat daanuwaat ñu bàyyi la. loolu mooy rirandoo. yaa ngi dégg bu baax. maa ngi lay dégg. waaye nag am na ñoo xam ne buñ la bëggee rek boo nee ndax yàlla tax. fas dëgg. xam nga lu mu niroo ci àdduna. Mm-hmm. nit ak jabaram. mooy ki nga xamante ni bu jàppee du bàyyi. waaw nit ak jabaram rek. mooy picc ak garab. ki nga bëgg soxol. macha mm-hmm. allah histoire baa ngi xëy ci kër gi. Mm-hmm. histoire baa ngi bëri ki ci kër gi. te tool ngeen mayante parce que da ngeen muggante. loolu original supporter waaye ma riirandoo. macha allah Papis damay dugg ak yow ci làmb ñu gis ne am na fi tey ay làmb yoo xamante ne di taxaw na yow tant en tant que technicien damay njëkkee ci nga xamante ne moom moo di Balla gay ak euh, euh, Boy Niang tey en tant que technicien combat boobu la nga ak Boy Niang. seen combat dafa méngoo. dafa méngoo. Mhm. woo ñu xam-xam de. ci làmb la ñuy wax. ak mun a bëre. ak xam luy làmb ak bëre. mooy wax nag seetal fii ñu waxtaan. waaye boo ñu seet ci mbéy léegi waxtu fiiru la. Hmm. Balla muy def ci làmb. boo ñaanoo gën a soxla. Balla Gaye li muy def. waaw boo ñaanee koo soxla. muy attaqué. attaqué. Hmm. boo kenn. booy ñaan moom day défendre. Hmm? day défendre boo juumee mu nax la te boo xeexee mu dóor la. te Balla day attaqué. waaye nag une deuxième chose. Balla boo amul fit doo taaw ak moom bu dee mbër nga laa wax de. wala nga doo amaat dëgg boo amul fit doo taaw moom de. boo amul fit doo taaw sa kaw. Mm-hmm. boo amul fit dooy taawee. Mm-hmm. loolooy Balla waaye boo ñaa mu amee fitam mun a taaw gérer loolu. <laughs> nañ xool nag liy des. mais ñoom ñaar physiquement boo xoolee kan moo gën a taxaw ci entraînement parce que gis nañ euh, def nañ seen premier jàkkaarloo. physique boo ko waxee. da indi ñaari complication mhm, mooy première chose. Mhm. maa la mag. Mhm. ëpp la xaalis téeméeri junni yoon. am hygiène de vie. ndax sama xaalis may na ko. waaye nag sport. làmb sport la rek basket sport la. xale. de mm-hmm. deux choses yooyu may naa la ko. yaay nag yaay contribuer. Mm-hmm. li nga xalaat foofu noonu. macha allah <laughs> li wax am na solo ma demaat ci beneen combat muy Sa Thiès ak Reug ngi naan Reug dafa taxaw ñëpp a ngi dafa taxaw techniquement gis nañ ne ki nga xamante ni moom moo di Reug mën na bëre waaye tamit tamit Sa Thiès kenn demul ma des combat boobu ndax ko jàngatee. noonu laa ko jàngatee. moytul ma kuy daan di daan di daan di daan. fooy daanoon doo ko comprendre te da ngay foog ne yaa muñ ñëpp parce que jar nañ ci ñun. pas journal amul lu ma deful ci làmb. waaye nag koo foogu ne moo lay daan moo lay daan ndekam da nga foog ne maa ko mën tamit mun ko rek daan ko loolu lépp mën a am ci làmb. waaye yàlla dina jox lu mot quatre la feebar duggee rek nangul la yàlla la. yàlla mënu naa may cinq ans ngay daan bu la mayee benn def rek nangul loolu xel la. ñoom laa koy may ñoom ñaar ñëpp. wax nga waxi mag de. ah non waxu xel laa lay wax. sama olof nag boo ko déggul ak doo dégg. Mhm. cinq feebaruma. say mhm. xarit di feebar. lu tax ñuy feebar yàlla la. Mhm. ah lu tax feebaroo la. ah yaa ngi daan di daan di daan ñii di daanu. fu ngay daanu nag doo comprendre fan lay doon. <laughs> macha allah Papis ñu gis xam-xam bi euh, ci biir làmb léegi nekk nga koo xamante ne bi ñëpp nee nañ euh, léegi dangay ngay da ngay ay ay ay ay ay ay mbër maanaam xam-xam bi fu mu ñëwee ci yow. xam-xam bi yàgg naa ñëw. Hmm. yéen ñi sax mënu ma ko woon fii da day garaaw trop <laughs> waaw may rek waaw. Hmm? yàlla hmm. xam nga suma ma neexoon du ma bëri. juddu ñu may boot. sama kër dinañ dem bitim réew. sama yaay ministre de la défense la liggéey France ministre de la défense. saa mag ne ko déedéet. upa wu ma ko. ma bàyyi la dugg ci làmb ñu naan lu tekki dara ci làmb ndax seen wàkk dañ koo reewal. ma dugg ci làmb tàkk jëpeet. ñu naan lu gudd fan. day gaaw a na bëri bi du bëri doomu aadama. ba bëri door ba beneen defet saa maam nag moo ma yar. moo wax ah bés ma doon dundee. sixième baaraam yi. mënumaa woo beneen bi dafa am lu tey sama gauche. sixième mbaar ñoo ko teel a dagg. ah ko teel affaire la xam nañ bu baax man xamoon naa 40 la ñoo mayoon. 40 yi mot na ma bàyyi la jël loolu. pourtant avant 40 ans gisuma nu ma fekk fii dama doon def trois jours boîte dama dugg sama kër. Hmm. maa ngi sant sama joor bu baax. ma nga may sama joor def nañ 24 ans xale mu ndaw dëkk ba fii. macha allah. dara te kenn gënu ko jantal ci jigéen. macha allah te maa ngi ñëwaat. waaye ni mag nee na boo toppatoo sa kër. Hmm, nee na lu farlu luñ koy woyee sax. lu ku farlu. moo fay jëriñoo moo fay mujjee. Hmm. man nag maa farlu sama kër nag lu may gisee nii sama yaay du ma wax baat ak lu mu munti doon. Hmm. sama pa sama papa yàlla ko yàlla yaram. sama mag boobu du ma dara.